ak ASC jàppoo man de ci sama jàpp 2013 laa gëj a gis ñu mujj koo daje fii ci stade bi Kër Mada eh, ASC jàppoo dóor ko 1 final wante nag tey ah ñoom ñaar ñëpp ñu indi supporter di poul boo xamante ni ñoom ñett ñëpp génn nañ waaye dañuy xëccoo kan moo nekk wante match bi bi mu démarré jàppo jàppoo ak ASC Kër Madaaro ñu fubal ba am cinq minutes ah ASC jàppoo dugal ñu fubalaat ba am sept minutes ASC dugal ñu fubalaat ba am vingt quatre minutes ASC jàppoo dugal loolu la match bi tëddee soixante deuxième minutes Kër Madaro am benn wante numéro onze bi doon dox ci fee di yóbbu bali di dem ak ñëw ñu ne ko demal toog bokkatoo ci pomi kon tey mooy troisième carton rouge fii zone dix bu Thiénaba muy ASC Kër daaro ak ASC Raay bi ak ASC Jamono ñooñu ñoo am carton rouge sama gars yi kon ma ne leen poul bi di poul bu doy waar boo gisee poule bi di poule B poule B étoile am na huit points Kër daaro am na set Jàppo am na sept points Magite zéro Demba Ñuma zéro wante nag gaay Magite ASC Jàppo bii day bu dóoree Magite day doon day jël fukki poñ day am fukki point daal di jël raw gàddu gi daal di féete gaay yëpp ca kaw léegi nag ASC étoile topp ci doon deuxième Kër Madaro am na sept waaye ñoom ñett ñëpp qualifié nañ seetaan ñu ñëwoon nañ jabo dégg nga gars yi kontaan rek victoire dafa neex loolu lañ leen indiloon gars yi kon poule bi ci nga xam ne premier tour yi diggante jàmm moo des ak ASC Jàppo ak Magi Tay ñooñu ñoo des Magi Tay moo dese ñaari match premier tour yi ñëw kon gars yi ñu préparé ñi nga xamante ne bi ñoo subal kummeer ñu préparé di préparer seen coupe bu baax a baax di ko préparation wante nag maanaam quart de finale moom mbaye boon jàpp ko séntu ba semaine ba di ñëw ci la quart de finale yi léegi nag suñ fu balaatee dinaa la ñuy wax quart de finale yi kan ak kan mooy daje euh, lii lañ indi leen koo xamante ni bi maanaam bëgg nga am lu la leer abonné ba TV caméraman bi mooy Talla Sarr ci micro bi ki ko doon jàllale muy ay muy Siré ci zone 10 A ah, bu Canaba loolu lañ leen indiloon gars yi ñu ba beneen yoon teg leen foofu seen baaraam yéen ñi nga xamante ni bi yéen a ngi seetaan